mbokk yi jërë ngeen jëf ñu ngi leen nuyu bu baax di leen ziar di leen jaajëfal di leen baalu ak di leen baalu di am contentement bu yaatu ci yéen macha allah comme leen toppal làmb euh, tey ki nga xamante ne muy Gora Mbaxal ndax ku ko xam-xam ko ak Modou Lo le euh, ndax ku gis na ki nag ni combat jeexee par décision arbitre la jeexee am ndam ci kaw Siteu euh, ñu félicité ko bu baax baax Modou Lo encouragé ki nga xamante ne mooy Siteu di ko wax làmb noonu la naam nag dugal nañu recours xaw ma fa recours bu toll mais loolu dañ ci ak Gora Mbaxal dama koy nuyu jox ko mu nuyu après ñu continuer li nga xamante ne mooy waxtaan bi góor ñu ngi lay waaw bisimilahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabil alamin muy sant yàlla di julli si bàyyi laay alayhi wa salaam di leen nuyu yéen waa Dakar People di nuyu àdduna ko am di am kontaan bu baax di leen déglu si émission bi yaa ma gën a xam. ayca macha allah mënu doon yow moom Gora Mbaxal Gora ku ne xam na ni combat royal bi doxoon ci diggante Siteu ak Modou Lo euh, jeex na ci càmm mais gis nañ diira combat bi coow li bari woon na waa Parcelles di sànni bal waa jàmm gi di sànni bal yàlla nag jeexal na ko Modou am ndaw ci kaw Siteu mais keroog euh, naka ngeen préparé seen bët. waaw waaw làmb bu si coow jugee rek nekkatul làmb làmb ak coow ñoo ànd xam nga làmb la woon dugal na si bisimilah rahmaani rahiim génn si alhamdulilah rabil alamin ni mu demee ñëpp gis nañ ko waa xam nga. loolu rek lan si mën a wax quoi xaw ma nag loo bëgg a wax man daal dama sonn si <laughs> wax ji. Ah, coono yi laa mujjee coono bi jeex na sax adduna moom lépp coono la. adduna lépp coono la moom ñu ragaloon ni coono ay jantal mel na ay góor yàlla lan. ñu gis keroog Dimanche euh, mbooloo bi nga xamante Modou Lo dégagé na ko ku ko xam Modou xam ne moom macha allah day yóbbu ful mais keroog dañu gis euh, combat Siteu bi ak euh, Modou mbooloo bi topp Modou keroog kenn xamul fan la nit ñi waaw loolu sant yàlla na rek Modou moom saa jugee mbooloo mi ju contre Ama Baldé ñëpp wax ni ñii ah, mbooloo mi fu mu jógee contre Boy Niang noonu bu ñëwaatee contre Siteu tamit combat la woon comme yeneen kombaa yi xam nga nit ñi bëgg Modou fonk ko jox ko cëram. muy nit ku baax xam nga rek yàlla ña yàlla am lu ko mooñaale moo am mayu yàlla loolu la rek ah waaw wax dëgg yàlla muur moom yàllaa ko ñaanal. xam naa ne combat bi moom jaay nañ ko jaar na mais yow nag bokk nga ci ñi gën a jaay combat. sama devoir laay def au passage may gërëm Mansour Ba le PDG de jàmbaar production xam nga mooy borom combat royal bi moom moo tëggoon combat bi Mansour Ba lu nu ji moo ëpp lool ko liñ ko defal nit ku baax la di ñaanal papam père ba bu baax. xam nga drapeau bi ñu ko tuddee yàlla na doon jiglaayam xam nga di gërëm waa jàmbaar production Papa Sow xam nga assurance Papa Gueye xeer yaa ngi dégg ñoom grand Thioune Daouda Gueye Assane Ndiaye xam nga di gërëm ñëpp kër gi nag xam nga di gërëm Sodo jabaram may ba xam nga ñoom ñëpp ñu ngi leen di gërëm waaw seen yaay tamit ñu ngi koy ñaanal yàlla bàyyi ko fi. xam nga di ñaanal ñëpp daal yàlla na jàmm yàgg yaa ma gën a xam di ñaanal roi des arènes Modou Xarañ Lo borom couronne bi. ay <laughs> ñu ñëw nag ci jouru combat bi. Mhm. ñu gis euh, Siteu dugg si biir arène Modou Lo biir arène nationale. Mhm. Siteu tamit aussi dugg si biir arène nationale ñu gis ambiance bi waa Parcelles lu jug neexal bis bi waa jàmm gën a jug neexal bis bi. loolu mooy seen devoir ay million dañ fay Siteu bu bëree soixante contre Lac de ñëw ñu yokkal quatre-vingt-dix millions ba pare ni ko ñëwal bëre combat royal li ko war mooy mu fecc mbulay cëgin ba doyal waaw dafa war a mbulay cëgin de loolooy bu neexalee ñu ñu neexal amul lu ñuy waaw lu neex la rek làmb rek foog ñu neexal waa boor bee yaakaaroon ni ñoom kase la xam nga waa jàmm gën fekk ci yow wax la nu ëpp rek mais bu dee jaay combat ak dugg si combat ñoo leen ko ëppale fuuf ñam ñam nañ roi des ñamati ko. waaw. billaay yow. mais yéen may loolu waa jàmm amul maye làmb amul maye làmb maye bokku si. amul lu ñuy may kenn. góor ñu ñëw nag ci jour combat bi. biir combat bi ni Modou Lo bëree keroog ak Siteu. kon noonu la war a bëree parce que ki muy bëreel noonu la ñëwee. ay stratégie la teg ay calcul la teg. xam nga kuy calcul nag neexul bëreel quoi yenn calcul yi. xam nga moo la làmb ji am nu mu demee. am rek sant si yàlla ah mm-hmm. nangu dogal parce que loolu nu yàlla sédd ñu jël nu yàlla sedd ku dul may sa bopp mm-hmm. loola yàlla may nga jël mm-hmm. waaw loolu laa gis ah moom da gis ne euh, Modou bi daf ko xawar sonal ci biir combat bi ndax gis nañ euh, contre Boy Niang la gënoon a oyof contre Ama Baldé la gënoon a oyof mais poids bi mu chargé dafa bari ba gis nañ côté xeex bi sax loxo bi da doon yéex comme si que combat boo ñëw ni mu rapidité ni gaawee gis nañ combat bi xeex bi sax dafa yéen yéenay wax yéenay wax loxo Modou Lo daa yéex mais du wax loxo Modou Lo daa yéex. du ko xalaatu ko sax parce que li mu ñam. Hmm. ku ñam xam li xam. ay poids daal di mu dem di dàq ji mbër ak pois boobu mu yor. Hmm. entraîné ba tool noonu làmb ji jor mu ñëw ngeen naan ay pois bi daal diis mel ni amul ay préparateur yu baax. Hmm. xam nga Sénégal nan bàyyi yenn sabote yi loolu sabotage ay poids bi daa ëpp ak bi daal loolu moom sabotage moo ni la prépare li la gis si làmb ji xamoon na ni lay demee mu def li ko war boo ñëwee ba si biir làmb mu demee nee na da ngay nangu mais ay entraînement bu jaar yoon la moo entraîné làmb la xam nga yéen gis pois bi mais ñun gisuñu poids bi moo du gisul poids bi noonu la demee. sax yaa ngi wax que ne Siteu dañ Modou la doon dàq muy daw mais ñu ci bëri nee nañ xeex ñaar moo koy def ndax kenn mënul xeex. kenn ki di nangoo xeex bu at ba at bi ñu commencé xeex raax Siteu génn saako yi mais keroog est ce que Siteu waru woon a taxaw dëggal boppam comme moom moo soxla combat royal bi te li yor moo ko bëgg. waaw waaw loolu yaa ko wax de te loolooy logique wala gis jiili génn na di wax ni koro bi Bombardier di bëreeg Modou euh, boo di bëreeg moo yor roi des moo fekki Modou daje. dañoo daje Modou taxaw léewtoo léewtoo dégg dégg fi ñuy ñëwee nag am seen di ñëwee Modou ko dóor ko mu daanu Siteu nag jéemul daje jéemul songi moom li mu doon def mooy arrière Modou tegee un pas mu teg deux pas arrière làmb ji daw la si doon def ba yàlla may ko loolu parce que xam rek Siteu ni muy bëree bu ko bàyyil day sonn si ay am si combat am di ñëw parce que maa ngi ko dégg muy muy muy muy tëkku empereur bi <laughs> empereur maa ngi ko dégg mu koy tëkku Siteu dafa neex de Siteu Siteu comédien Siteu làmb da nga yaakaar si wax rek Siteu làmb du wax rek da ngay jëf de ngay jëf de yaa ngi dugg si loobu garaaw fii nag xaw nga fi mucc parce que sunu waay nga mais mais gars yi xool waay de dañ lay duma de mooy tul de defarul de loolu léegi laa lay conseillé. ay ngi noonu ñu dalal ko tey moom góor mbaxal góor chute bi am polémique bi bari Modou def na carte appui Siteu bopp bi nekk na ci saako yi Siteu def na quatre appuis quatre appuis fekkante wu coow waaw léegi bu dee ay quatre appuis ngeen xanaa gisu leen bopp Siteu Siteu bopp beng ci suufu kaw saako bi xam nga Sénégal nan bàyyi yëfu naa fekk yooyu ay quatre appuis ay épaule ay noonu comprendre nga boo leen gisee épaule Modou wala quatre appuis Modou xool leen bopp Siteu ak quatre appuis Siteu yaa ngi dégg VAR am na VAR quatre angle la xool nañ quatre angle yëpp li ñu gis mooy ndajee fa am yaa ngi dégg xool nañ lu leen doy ñoom nañ def ñu bëriwaat Modou jël na ndam si loolu mm-hmm. kon VAR qu'est-ce qui passe lu muy jariñ VAR la lay jariñ mm-hmm. xam nga Sénégal nun bàyyi naa fex yaa ngi taxaw di seetaan nit ñi mm-hmm. ñu dem di caméra ay caméra am ñu teg quatre caméra yëpp nga ñëw fii naan ay quatre apec ay nangam man gis naa bopp si ta ñu noo waroon def loolu ñuy def billaahi wallaahi boobu bi laal na saaku yi mais xam nga rek làmb senegal Sénégal moo metti quoi Sénégal nekk fi dara dafa metti mhm. seen mental boo amul mental bu foor mhm. dëggaloo sa bopp da ngay teel a paan mhm. man lay gaare. dañuy gis yu loolu lañ gis làmb ñoo soxlootul Modou site internet yi ñoo gën a seytaane si say si làmb ji. lu garaaw laa lay wax. Ah, non si fii laa oh. génn wax benn site internet wax ko ñépp senegal ku ne naan lii ak lii ak lii man sama wax jëli Moussa ku ma wax lii ku ma tam ku ma tam ku ma teg baaraamu tuuma rek xamal ni kooku tuuma la. bilaay site internet bu fi génn carte ab seytaane nga. Hmm. génne leen bopp site loolu la rek wala yéen fii rek ngeen bëgg gis. waaw gisu leen ñu ñun gis nañ ko man gisuma carte ab yooyu ngeen wax. Hmm. mais waaw yooyu action bi ba tey yooyu yëpp garaaw ñun lu nu arbitre may rek leen jël. Hmm. xam nga ñoom bind nañ recours ñu ngi leen di xaar réew CNG yaakaar ni ñoom ñoo ko moom wala da leen di dooleel li may waxaat laa Malick Ngom méfie-toi méfie la bëgg a dugal la rek. ay am na solo góor euh, bi loolu amee ñu ne si am naag amul ñu dem VAR VAR ñëw ne dara amul ñu bërewaat yàlla mujj def combat bi jeexee par décision arbitre euh, ñu jox ki nga xamante ni mooy Modou Lo ndam bi ñu yëkkatee loxo Modou Lo. mooy roi bi delluwaat na parcelle xam ñun yàgg yàgg xamoon na dañuy yëg di suñu loxo ñun bi ñuy dem yë prévenir na loolu doon ñooy may suñu bopp du demee noonu mais lu ñu yàlla may mooy lii la yëkkati loxo lañ gis buñ ko daanoon ba toog si kawam dañuy yëkkati suñu loxo buñ ko daanul tamit ñu gagné par avertissement yëkkati loxo la kon yëkkati nañ suñu loxo sant yàlla la amul leneen lu si waaye di wax ku yor sa leneen nag naan da mu da ko war dóor daan ka da ngay dem ngemb sa baay wala nga ngemb sa bopp dem dóor sita daan ka làmb dafa metti moo dafa préparé ay weer sonn si làmb jël alalam dugg regroupement bàyyi njabootam ñëw ba tey yéen xam nga Modou Lo deseetul dara am na yenn wax yi boo koy dégg nit ñi di la woo wax da ngay da leen di mere sax moo deseetul nu dara Modou amul lu mu nuy mayeti si si làmb xam nga nu gunge ay rakam li si des RAS ñun mool na baax na xam nga boo demee ba làmb ñu jaral leen lii si àdduna da xam ni jaratu ko quoi wax dëgg yàlla man dama mujjee yërëm Modou ba sonn si yàlla baax na quoi. tamit ak lu mën a xew Modou Lo moom yóbbu nañ ko ardo. waaw Modou benn yoon la dem ardo Modou yàgg na dem ardo kon dem na ardo la doo jéem daan ngay wax ardo il yooyu nag. da ngay jéem a daan ngaan ay ardo la mooy ardo ardo pour faj la rek mhm. Mhm. loolu la rek ah ñoom moom yaa ma gën a xam. Mhm. ayca am na solo euh, ñu dalal ko tey moom Gora Mbaxal euh, Gora bu combat bi jeexee nag euh, polémique bi bari ñu ci bëri ne combat bi dafa bëri woon ñuy sot ku ci mel ne ñoom Mara ñoom Modou Lo yi génn nañu aussi ne combat dafa bëri woon ay sot sot bi yow côté ban la côté mystique bi la wala côté comme ni ñuy wax ne promoteur dañ doon sot wala yenn journal dañ doon sot fan nga jàppee ne sot bi fa la. fi nga wax fépp ñett yi nga wax ak dañ doon sot journaliste yaa ngi dégg promoteur yaa ngi dégg Serigne Seck. xam nga ñëpp sot mais nag ki yàlla samp moom mënees su ko daaneel waaw boo bëggee daaneel nit te yàlla bëggul mu daanu daanu Modou daam ñaan waajur Modou xolam a rafet lool la ko yàlla fay Modou ñaan waay da ngay ñëw fii nga bàyyi sa déy bi nga laaj yaa ngi dégg man jeune journal yi moo tax bëgguma ngeen mais da ngeen di déyante man xaw ma déyante da ngay laaj déglu lim la laaj waxal lim la laaj non wax waxal lim non boo waxul du ma wax du ma wax. dama dégg mais sot bi dégg nga wax lim la wax. Euh, mais côté bi ndax gis nañ ki nga xamante ne mooy Modou euh, bi làmb ji jeexee woon nañ ko mu def liñ ko waxoon mais surtout gisuñu ko mu def lan la. waaw parce que dopage ba dégg naa boo toogee cinq minutes bu làmb ji jeexee cinq minutes naanoo kii woo ñëwoo si dopage bi man nga naan lu koy dindi surtout bi ñu ko wooyee si plateau bi dégg naa ba fa bañ quoi Massa Mbargane nag dégg naa ko mu génn mu ni bin ko wooye dafa ni manul tekki ngembam foog mu dem këram ñëw bi mu demee këram ñëw dafa guddi xam nga yenn wax yeeg yooyu noonu bàyyi seen caaxaan xam nga li rafet mooy làmb naan respecté nit ñi li nga lii Siteu def bu ko keneen defee li li ñu teg Siteu nañ ko ko teg nan yamale waaw parce que ñoom gënu nunu quoi làmb la joxante ay kàddu signé ñun nag li ngay signé danga koy gëm ñu ne dem nañ xool ba xam dopeewunu ñun kenn duñu wax dopeewunu waaw ñoom nag bu leen ko waxee ñoom ñoo ko def parce que ñoom ñoo daw loolu la ah. Mhm. da ngaa jàpp ne yamale wuñ non non non sàmb ji amul yamale. mais daan def lu leen neex man li gënoon mooy nga sot nit daan ko sot mënoo ko daan ban sens la am seen so ñoom ñëpp am gàcce. Mhm. Mhm. billaay gàccee leen ray de mais yàlla ëpp sutura moom. mais góor dañu faral di dégg ñu ne euh, titre roi des arènes bi euh, bëgguñu ko ko yor lu yàgg ndax boo xoolee Modou yor ne ko 5 ans comme côté sot bi la ñuy ñëwaat. pourquoi nit ñi bu yoree titre roi des arènes duñ bëgg mu yàgg ci yow. waaw mais Sénégal ñoo mel noonu bu nekkul naa fekk Modou Lo risque yi mu jël doon roi des arènes bëri que un trois combats un an at mu jël couronam jël si risque ba si ay rak jël si ay rakam teg risque xam nga Modou ngàcce ngalaama histoire day bind lii lamb nan delloo nan delloo njukkal Modou ñu bàyyi seen tàppale yi ñoom lamb kuy tàppale lan gën a soxla ku nekk si dëgg. Modou mooy dem di attaquer di dóor di xeex di bëre Modou mas niilul si roi des arènes bi mas niilul day dem di bëre ji di rayante tappalewul te ñu ñëw di xeex Modou ak ay affaire ak ay nangam xam nga nan daal Sénégal tappale moo fi gën a dox ka nit kuy ja rayante mais nag boo nekkee naa fex moom noonu rek nga mën a mel ku yaru si naa fex naa fex nga mën mais Modou du dëgg la yàllaa ko bëggal boppam te lu muy def si dëgg la koy def kon loolu sant yàlla la waaw. ñi wax ne dañ ko jàpp mystiquement. Ah, baal dof yooyu waaye mooy jàpp duñ gëm yooyu. ah dégg maa ngi dégg ñu naan mbër faram naan Siteu dañ la rayal Modou ba mu dee rek maanaam mais nag waaw mais nag boo yuti gàllaaj day fekk nga am fit quoi chaque jour ma wax leen ko wax naa korog nee naa Siteu maa ngi fit foofu maa ngi ëpp fitu géew. waaye li ma am korog ci Modou su ma ko amoon xam ne lépp dëgga la ay wax bëriwul de ay wax bëriwul. làmb dafa am lu mu làmb dafa lu mu àndal muy jëf xam nga fit ngóore jàmbaar loolu la làmb am ñett yooyu boo ko boolewul doo doon champion de ñun roi des arènes daan de pour fi war a jël da am noo koy jëlee de mais ay tàppale taxaw ci saako génn daw ay pël am na tëni <laughs> de Eh, booy yee eh, booy suñu ñee ñoo far waaw kii day métti eh, loolu bëgg booy jàppale la loolu amu fi de <laughs> loolu jëlu roi des arènes de <laughs> jëf ak ngóoro jàmbaar moo koy jël ay yuuxu yooyu ay dama gisee sama yaay du ma bàyyi ay comédie yooyu jëlu roi des arènes de waaye def si dara il n'a rien fait si te n'a rien fait dans combat lamb ji jeex ñu gis si toog plateau nekk titre roi des arènes la soxla nañ ko fekk ci biir kër jàmm gënam takkal ko. ah parce que Siteu yooyu lay def ay menaçaate combat bi bële lay menace fii la bëree contre euh, Papa bu jëkk bi xam nga taw tëggkatu sabar toj Papa boppam reliquat mu ni moom matali na contrat am Pape Fall da koy jox xaalis menace si na bàyyi yooyu ñun fi nekk dëkku senegal la kenn amu fi dara xam nga fii lu fi waaye am dala da bi ngay ñëw yaramu neen nga ñëwee loo fi am dala dab. xam nga ay yenn yi nii am people rek yaakaar ni bu soo Ousmane si ñëwoon da nga koy ko teg ci suuf xam nga na sàmm carrière am defaraat àddunam defaraat entourage xam ne làmb mu kay fay mais am na loo boo ko teg ay yëfu bandi ay yëfu yooyu noonu gars yi dawunu lool de gars yi jàmbaar lan de ni nga nekkee jàmbaar noonu la gars yi nekkee jàmbaar ba romb la xam nga moo tax day rafet billaay walaay taray day rafet de waaw boo ko rafetalee mu rafet boo ko ñaawalee mu ñaaw waa ah, na rafet de billaay wallaay taalaay loolu laa koy wax de. pour ñu gis na benn action bu mu def ah, ki nga xamante ne mooy coach su Pape ñu bëri nag rafetlu wuñ ko peut-être mën na am tamit Siteu yaram bi dafa tax mu def ko nga gisee action bi. tey nag bu gaañoon bu gaañoon Pape Mbaye coach su Pape Mbaye lan lay wax loolu Siteu gàcce du ko fa dal ak li ko Modou teral ak li mu wax si Modou yëpp xam nga muy loolu rafetul quoi c'est une image bu baaxul la image bu yàq làmb la. xam nga Pambay kilifa la kon Siteu war na def leneen lu dul ay di di kii euh, comment on dirait di di di fël Pambay quoi lool du cëram xam nga l'homme à la place qu'il faut xam nga le respect réciproque xam nga dafa war a am respect bi quoi Pambay jiwu ko lool kon loolu tamit xam nga waru ko def Siteu il mal placé pour faire ça pour faire ça quoi Siteu loolu du sa rôle da nga juum te tey boo gaañoon Pambay dama mbagam wala dama loxam gàccee la si dal xam nga contrôler sa bopp bu dee mënoo contrôler sa boobu nga xool leneen du làmb xam nga nit nit kalaa ñoo xam dëgg nit mooy ku nekk si sagoom xam nga mais dépassé sago loolu du ko def mais si tam dama koy comprendre làmb ji da ko dépassé da ko dépassé ñoom suñuy bëreeg Modou duñ bëreeg Modou roi des bi la ñuy bëreel roi bi ay seen couronne couronne bi la ñuy bëreel loolu da lay gën a empêcher ci pièce bi nga ne hmm. am na solo ay ca euh, làmb ji jeex wax dëgg yàlla bi làmb ji jeexee tamit euh, gis nañ ki nga xamante ne combat yi ñu naan Modou Lo Sa Thiès et puis Père tamit gis nga ko def benn recours recours bi fan ngeen ko. lan mooy recours yow ku nekk yow ku daanu. waaw waaw ñoo ñoo leen si aussi dafa daanu rek dem si plateau yi jëkkante plateau yi influencé nit ñi xam nga Père Max génn fay demaat CNG influencé waa CNG xam nga ku am dëgg dafa neex a xam dëgg dafa neex a xam dëgg dafa am mu féete. mais tappale yooyu ñu nekk buñ si boolee gaay na ba gars yi nangul leen ko moom seen ñàkk fayda la ñun moom ku fi tappale moom ñu dal sa kaw loolu rek laa si gis. waaye ba recours ba daa baax nga am recours baaxul sax. baaxul recours yaakaar ne. waaye daa baaxul ba am yaakaar yow ma wax ay dof yooyu waaw ma yoxul nit wax dof ay. ayca <laughs> am na solo combat bi jeex Gora Mbaxal ñu ci bëri seen xel dem ci Modou Lo Sa Thiès. ba tey làmb la ah. làmba la rek waaw ñun daal tout sauf Balla Gaye. ah ñun Balla moom daan aller retour lan la kay doy c'est xam nga nit tey chaque jour Balla Modou loolu dafa soof. àdduna ñoo lay jéppi Modou bëggul ku ko jéppi Balla àdduna da jéppi si benn côté yi si ay làmb yenn yi ni Balla Gaye ñun na kiiw nu ko quoi bref loolu ma kii waay bu ma si sori Balla Gaye daf xale yi lay bëreel bëri na ak ay moroomam bëri ay maasam yaa ngi dégg. Gris Bordeaux magu Modou Lo la Bombardier magu Modou Lo la yaa ngi dégg euh, comment on dirait Balla magu Modou yaa ngi dégg Modou Lo bëri na ay magam ay Bouba Diop ay les deux ay dix combats yoo ay magam la mu tourné jël ay moroomam xam nga ay Lac de Guerre. ay moroomam lan xam nga li ma la wax mu tourné jël leen mais tax mu tourné tey di jël ay rakam xam nga fa la toll bëri ak say morom bëri say mag sa rakaal bëri ak say rak loolu la rek mais ay tourné di jëlaat say soof quoi man loolu man daf may soof du sama activité man bëgguma ko waaw man bañu ma si mere si de moom bëgg na bëri empereur partenaire waa des arènes dem na xooli empereur paa bi xam nga mooy yëfu mag ñëfu paay <laughs> li asa kii ki euh, dëgg Caaroy mën na jaay ki mag yi yi ba jot mm. lañ bëgg bëri ndax moo am euh, weer dañ lay fay avitaillement am na ko te titre bi amul ban xale nga wax xale kan non danga may wax lañuy ngay seytaane yëpp naan ma xale yi wax ma ban xale la seytaane nga waaw waaw bàyyi ma dof boobu waaye waaw digal ma ñëw ko di doomu Balla nga xam soo bàyyi dof boobu bu fi tudd di dof boobu de bàyyi ma biiram bu yaatu boobu nga xam ne kooku daa am làmb dara mu bàyyi doo ko catégorie ñoom yaaw ja dafa la bokk de ñoom buur sitaak mu digal foofu la tool dof boobu mais am na tamit euh, muy doomu ndayu Modou Lo muy bébé Elton moom mu gis leen yow du dara ah rek lan ko war a daan daan ay doomu ndayu Modou Lo yooyu amul sens doomu ndayu yu Lo Modou Lo palaasam place am moo bëri place yàlla def ko na nakku ñu koy encouragé xam nga gis nañ taxawaayam ba taxawaayam sax am na problème biir géej waaye xam nit ñi daan matul. ku faral ku dëkk géej waaye faral fii ñun la nangam ak nangam wala boo waxee malheureusement moom Sénégal neexul fare neexul waxe foog sa mental foor xam nga mais nag garaawul ko maa ngi gis Cheikh Niang ñu koy may xaalis muy wax rek ñu benn bëy bu ndaw mu ne foofu di mbéydadari rek Cheikh Niang garaawul gars yi may leen lool ñoom si dunguru la ñuy ame si dunguru la ñuy ame de ah, toog billaahi wa ay Cheikh ay dunguru kat lan yow ñu topp si ah ba non bul la géwal yi de yow yaa fi indi géwal bu ma dugal a géwal yi man doo ma dugal sa yooyu da nga koy dugal maire boobu nu mu tudd kook de man waxuma la géwal neel yow yaa wax géwal yi man waxuma géwal yi géwal yi ay nit lañ comme ñun man dama am ay mbokk géwal amee xaritu géwal doo ma dugal si géwal yi de man bu ma jaxase de yow géwal yaay ñaan man xam yaa man waxuma fi géwal waaw ñaan laa fi wax indi fi géwal yaa ko wax man kenn du ma dugal man de laa ko wax waxuma ko. <laughs> nee dama ko bëgg a dugal ay ca noo gisee mbiru parcelles yi taxawaayu xale yi koñ bi macha allah ñëw nañ topp Modou Lo yàlla may ko ndam noo gisee. waaw loolu mooy seen devoir xam nga yaru nekk nit bàyyi seen yëfu dof-dof lu yi ñenn ñi ñu ngi nekk si yenn dof-dof lu yi comprendre nga nan cadré wu ak seen mag Modou mu gunge leen li Modou am si làmb man nan ko am mm-hmm. Modou toppuloon kenn di. mbatar mbatari wala di yàq dara dafa ñafe ba am li mu am gis nga fii Modou mën na la gunge mais yaay ñafe moo dugg si biir géew booy xam nga ay ñoom ñang baal noonu góorgóorlu ñooy suñu révélation ay ñoom Giro Seras yaa ngi dégg ay Talfa ay Aado booy Bool ay Franc ay Goro Sok yaa ngi dégg ay Oninga ay Obali yaa ngi dégg gars ñooy sunu référence ñooy suñu espoir ñooñ lan yaakaar ay Anaconda def fi barki démb lu doy waar muy Baye Fall di champion di gaynde Anaconda xam nga ay kii euh, vieux top xam nga ak sii di Jàmbaar ñu ngi leen di félicité di Ndiaye xam nga di leen félicité bu baax a baax a baax a baax yéenay sunu révélation ñun da leen yaakaar si làmb defaru leen ñëw ñu ànd ak yéen cent pour cent parcelle pare na pour gunge ñëpp ñëw leen ñu àndandoo ñu liggéey ak yéen jàppale leen parcelle ñun yéen lan am muusu parcelle buy xare ji sax buy génn ñun dañuy ànd ak moom déggoo ma de ginaaxu parcelle moo nu gënal ginaaru feneen billaay wallaay barki barke alquranu karim billaay wallaay taalaay barke alquranu karim déggoo ma de ginaxu parcelle moo nu gënal ginaaru feneen lu waay di ñoddi am na parcelle fii bon lieu la gars yi dañuy yuuxu nii rek di tararari mais ñoo leen gën a pare aller retour barki Seydina Mohamed lu ñu bañul bañu nu gasi waaw ñun ku bëgg parcelle ñu bëgg la ku bañ parcelle ñu bañ la fi mu toog gars yi nu ko laal ii <laughs> liggéey kay maye de barke yonente mais ay suma ba mu tën yaay am de ay waaye mayewul couronne de couronne de gis nga yooyu la am si làmb naa ko loolu sama waay la si de ngédee la man dama musa ànd ak pim pim bi ànduma ak moom si sociaux moo nu boole rek jeex na bu jeexee jeex na man man dama xool ñooñu man may jantal may robo yow man may gentleman yow man may icône. ay ca kontaan nañu euh, ñu ngi lay jaajëfal ndax ku ni xam ne sax dëgg yàlla euh, temps bi yëpp sax nag am leen ko waaye man nga ju benn 15 minutes pour ñu waxtaan ak yow ñu kontaanee la bu baax. ah loolu dara yéen a ko moom man moom dinaa dégg lu ne si interview yi mais yéen boo yéen yéen a ma leen koy defal parce seen liggéey la ngeen am si dara moo ma gënal ma bañ leen ko defal jullit jullit lu mu mënal moroomam mooy defal ko lu baax sama lu baax li laa man si yéen def naa ko su ma amoon leneen tamit loo leen soxla ma yor ko dama leen koy joxe noonu man loolu laa gëma ah. àdduna li ma gëm rek laa wax lu ma gëmul man du ma ko def kenn moomu ma bi may jël di jël micro baayu kenn waxuma ak yaayu kenn waxuma xam nga maa jël sama initiative xam ne mën naa wax ma war a waxal sama dëkk xam nga ma war a taxawal samay nit loolu la rek mais à part ça nit ñi moom foog nga am di gërëm gaa yëpp comme ni ma ko waxee démb waa Europe bi maa leen sant di leen gërëm gis naa appel yi gis naa message yi mais dangeen si boole koppar bi nga xam dangeen si boole xaalis dama sonn gaa waaw chaque jour woote bu dul jeex xam nga yónnee leen ma iPhone sax wala xam nga wala boog Youssou Ndoye l'international Youssou Ndoye capitaine équipe nationale benn iPhone gaa xam nga wala boog sama gaa yi ñàngaan xam nga ñàngaan wala mm-hmm. boog jëlal leen si iPhone yi gaan ma yor lu baax yi xam nga di gërëm ñëpp ah, di sant ñëpp gis naa appel yi xam nga sant ak gërëm ñeel na leen sama seytaane bi yow nitu seytaane da ngay wax lu la neex ay sa moom kenn demul mu dem moo lay jaay di la déy xam nga mais nag liggéey beeg loolu ñoo ànd mooy wax seytaane la ay sa rek farewul mais kontaan naa Dakar people ah yàlla na yàlla fay leen dooleel leen xam nga. di gërëm waa gàlle bi xam nga fi ngeen ma fekk fii ñu seetaan match Real bi sama grand Omar Cheikh muy nit ku waax doomu nday Balla Gaye waalo waalo la Balla Gaye la faral mooy mbërëm xam nga di gërëm sama rakk yi ak Issa Laye xam nga ñoom fat gars yi fii gàlle bi xam nga di gërëm sama rakk yi toog xaadim sama càq sama chauffeur fu ma jëm moo ma yóbbu moo war a yóbbu léegi dama am guddi gi fële boulangerie zone fële euh, Sacré Cœur xam nga ñoom tiis ñoom cawlaay gaay ba gaale bi di nuyu sama rakk yi yëpp toog bëgg naa ñëpp ah di ñaanal ñëpp senegal yàlla na fi yàlla def jàmm rek cën ayca merci beaucoup ñu jaajëfal ko Gora Mbaxal ñu kontaanee ku baax a baax di ko félicité waat nag bu baax a baax encore une fois euh, ndax li ma wax rek durant combat bi ñëw nañ fi ñu ak moom ba combat bi aussi ñëw nañ fi ñu waxtaan ak moom ñu jaajëfal ko kontaanee ko bu baax a baax a baax di wax moom fi mu teg loxoom foofu la macha allah ñu ngi koy jaajëfal ayca laa ci àndaloon saa su nekk rek mooy nekk ci caméra bi ba tey ngeen am ayaa mu ne ci micro bi ñu ngi jafal ñëpp di kontaan ci ñëpp jox ñëpp dig daje beneen yoon euh, ci beneen émission spéciale la am ngeen jëf